mais ay kilifa yu la ko defal da leen di sant ba ñëpp xam ne jàppale nañu yàlla moom seen fay yàlla na yàlla fay leen ñuy sant suñu borom bu baax a baax a baax ndax lii lépp ngir yàlla la ndax élection yi ba ñuy commencé dañu woon dañuy toog abstenir si élection yi ndax yàlla dogal na présidentielle bi ñu génnee ba léegi dañoo toog jàpp suñu njàmbur topp suñu liggéey ma waxoon ni réew mii ku fi mën a ñëw ëllëg bëgg dara si Tivaouane bëgg dara si département bi bu jaaru si Abdoulaye Diagne Gall bu dara loolu sunu borom defal ñu tawféex ba ci jiite réew mi di le président Bassirou Diomaye Faye di le président Ousmane Sonko xool sunuy mbir woo ñu tàllal ñu loxo ni fi ñu jëm bu ñu sañoon ànd fa ak yow man it ma nangu loxo boobu ma tàllal waaye waa Tivaouane rusloo woo leen ma yàlla xam na ni résultat tey yii bu demee woon neneen tey fii laay taxaw ni bàyyi naa politique ndax dama ne woon élection yii mooy déterminer élection yi ñu jëm pour li naan cin. bu naree neex baxee xëy donc maa ngi leen di wax ni fa ma jëm ëllëg naa ko ma jëm élection mairie bii di ñëw ñeme naa ko ndax yéen dama ni dama liggéey bi incha allah dafay door tey ndax yàlla dogal na ñu bari lii ngeen def tey di fêter kontaan am na ñoo xam ne seen i tey moo doon taxaw fii saboté yuuxu mais yàlla dogal na leneen waxoon naa la mbëkki démb sa fooñi ma ni leen caw caw caw dafa léger waaye bu bàcc yi commencé dinañ xam ni dinañ xam ni dinañ xam ni waxoon naa ni caw caw caw dafa léger mais su yi commencé ñu xam ni Tivaouane am na borom ana sabar yi lay wax Abdou Karim waxoon naa ni si UPIS la gars yi waxoon nañ si delluwaat la gars yi waxoon nañ si delluwaat

fi ñu jóg liggéey bi mi ngi doog a tàmbali may remercier waa Pastef yëpp di remercier le coordonnateur Aliou Badara Mbour ndax raar na nga gis nit ku ñëw pour jàppale Pastef ñu xatal ko waaye yàlla dogal na bi ma ñëwee pour jàpp si ñoom yombalal ma lépp xam nañ may kan xam nañ sama gëdd loolu nag su la yàlla boole indi ngeen ànd ñu jëfal la jëf bu rafet da nga koy wax ba ngi dem si quartier général Pastef léegi nii vingt et une heures pour def déclaration bu ñu paree danañ jibili waaye mënuma wax te ñaanaluma ñi nga xamante ay doomu Tivaouane ñu investir loolu ci opposition sama xel day dem si sama rakk di sama xarit di Yaya diis di ko ñaanal yàlla ko yàlla gën a taxaw yàlla gën ko jàppale yàlla doon fekk ay xew yu yaatoo yaatu di sant aussi Massata Samb moom aussi wax dëgg yàlla yàgg na taxawu Tivaouane ba ñëpp xam taxaw na Tivaouane élection nii rek la kii day gagné kii perte man dal na ma si 2022 élection législative yu perte élection yi ma jël sama téléphone woo Massata félicité ko élection présidentielle yi passé bi ñu perte pouvoir jël naa sama téléphone woo Aliou Badara Mbow félicité loolu mooy démocratie teewoon nag jàmm rek moo ko mën a xew yàlla may si jàmm ci gagné gagné na si jàmm jërë ngeen jëf ma fàtte aussi félicité sant aussi sama famille su ma nee sama famille muy samay yaay ak ay tonton samay mag samay rakk ndax samay mag yëpp commencé si Khalifa commencé si Omar commencé si Sidi commencé sama soxna day fari commencé si Adja Mbaye commencé Adja Ndiaye commencé aussi ci samay doom yi nga xam ni tey bi ma soog a aussi encouragé nañ ma si ma dem donc loolu foog ma sant leen aussi la sécurité ñi nga xam ni tey depuis presque bi campagne bi commencé nañu noppalu wuñu sant bu baax a baax di sant aussi Aïda Dieng bi nga xam ne moo jiite waañ bi moom mooy sant moo def def na ko en tout cas. la jeunesse la di sant jeunesse bi surtout jeunesse bi aw ma seen fay les sages aussi aw ma fay les chauffeurs aw ma seen fay. la presse Eumeu Sène Faye jërëjëf la presse aussi Eumeu Sène Faye li fi des nag mooy nañ ko daan defee nañ continuer liggéey bi nañ continuer liggéey bi si nañ ko daan ci yar ak teggin bu ñu xuloo kenn bu ñu saaga kenn bu ñu xas kenn ndax loolu suñ ko defee yàlla mën nañ dimbali fañ bëgg egg ñu egg léegi nag Tiwaawoon am na borom na gars yi nangu ni Ilaahi loolu mooy di féliciter le président Ousmane Sonko di ko ñaanal di féliciter le président Ousmane Sonko di ko ñaanal yéene bi nga xam ni am na ko si Sénégal ba ñëpp am ci moom yaakaar yàlla bu yaakaar boobu tas yàlla na ko yàlla gunge yàlla jàppale ko ba yaakaar bi ñëpp am ci yàlla yàlla bu yaakaar bu tas waxoon naa ko bi mu fi ñëwee. su ma jógee nga xam ne gaynde jóg na yàlla nag dogal na loolu maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kontaan nañ en tout cas ànd defar awma seen fay les alliés aussi awma seen fay góor jigéen mag ak ndaw awma seen fay donc yàlla nañu yàlla tee suñu diggante ba fi ñu jëm am na yàlla dimbali ñu Pa Moussa waaw tey nag dimanche la